ci kilifteef préfet département de Ziguinchor pour euh, euh, joxe li nga xamante ne ne moom mooy benn don engrais bi nga xamante ne suñu partenaire kii di office chérifien des phosphates moo ñu ko jagleel muy euh, don bu am solo bi nga xamante ne presque téeméeru tonne engrais la donc te engrais bi ñu ngi koy fas yéene joxe presque à deux mille personnes ménages ñi nga xam ne dañ leen tànn ci région Sédhiou ak région Ziguinchor ñi tànn leen nag ci communes yi nga xam ne ñoom la euh, ñoom ñoo gën a impacté ci conflit bi maanaam ñoom la conflit bi gën a laal te ñi xam ne léegi seen euh, communes yooyu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy population yi dañoo tàmbali dellu si seen dëkkuwaay wala dañoo am fas dañoo fas yéene dellu ci dëkkuwaay yooyu donc mooy ndimbal boo xamante ne bu am solo la bi nga xamante ne ñu def nañ ko ci diggante bi nga xamante ne nit ñi tàmbali nañu li nga xam ne mooy mbay ci tool yi ak mbay ci àll bi ñu jàpp ne ndimbal boobu donc yegsi na ci waxtu bi nga xamante ne euh, ñooñ population yooyu yiteewu nañ ko te aajoo nañ ko te jàpp nañ ne incha allah dinañ leen mën a dina leen mën a jëriñ ci lu bëri ci li nga xam ne moom mooy seen yëngu-yëngu. waaw xam ngeen ni ci wàllu woowu bi nga xamante ne population yi dëgg mën nañu delloo boobu ñibbi ñib ñib ñib ñib si boobu ci seen euh, dëkkuwaay donc dafa am ay euh, besoin maanaam ay jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel te donc ñu ngi koy ñaan état pour mu jàppale leen ci. donc ci besoin yooyu ñun euh, commencé nañ ci liggéey ndax euh, nu ngeen ko xamee depuis daaw am na benn programme bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy teg pour euh, li nga xamante ni moom mooy faciliter réinsertion ak réintégration population yi programme boobu ñu ngi ciy liggéey ak partenaires yëpp ak euh, population yi tamit à travers les chefs de village te liggéey bi avancé nañ ci lool lool lool lool. Euh, ci li nga xamante ne tamit moom moo am moom lañu ñu nemmeeku fan yi mooy processus de retour boobu tamit fexe ñu ba ñu créer benn kuréel boo xamante ne village yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg dellu boobu donc kuréel boobu village yooyu ñoo ko ŋànk te ñu ngi waxtaan. donc ci euh, euh, euh, kilifteef ki nga xam ne mooy gouverneur de la région de Ziguinchor pour que li nga xam ne moom la ñu wax ci ay doléances pour ñu mën a xool ndox ni ñu koy seetoo ak ni ñu koy saafara donc te ci biir loolu donc euh, ñu ngi euh, créer cadre boobu pour que mboolem projet programme ak mboolem structure yi nga xam ne ñu ngi yëngu fii ci département Ziguinchor wala ci région Ziguinchor donc pour que ñu mun leen intéressé ci kuréel boobu pour que ku nekk mën a indi donc li nga xamante ne moom nga ci mën pour que ñu mën a fexe ba balaa population di dem. ci matuwaay yëpp yembee pour que ñoom tamit bu ñu delloo ñu mën a fekk fa li nga xamante ne moom mooy tax ba ñu am dëkkuwaay yu rafet